Cheikh nekk fii Wassare Lamb ñu nuyu baax a baax di leen ziar tey kii li fi fekk si xoolal ma ko xoolal ma ko xoolal ma ko Gamou Gueye 2 école de lutte libre gi 100 pour 100 Pikine 100 pour 100 Rufisque dégg nga maanaam 100 pour 100 Pikine ay li laa la nii aca mbokk internet ci Wassare Lamb ñoo ngi fii si Tëngéej si Rufisque xam ngeen tey ku fi fekk mooy kii di Gamou Gueye Gamou Gueye nag moo nar a jano kii di Tapha Mbeur Tapha mu nekk combat boo xam ne Sénégal ñoo ko doon xaar askan bi ñoo ko internet yëpp yéen seen bopp yéen ko xaar surtout maa waaye te ne Wassare Lamb moo tax tey fii ñëw fi tëngëj ànd ak sama cameraman xali automatique ce garçon il est automatique dañ dugg si biir xool waa tëngëj nan lañ préparé combat bi parce que dafa nekk combat boo xam ne combat spécial la Gamou ñu bëri la ko doon xaar dëggal booy li ñuy woy booy la ngeen di woy nii yéen xaaral balaa boobu balaa may si booy ku dëkk fii ñëwagu moo dëkk fii ban mbër moo dëkk. Gamou Gueye. Gamou Gueye. ban mbër moo dëkk fii. taxaw dëgër Gueye. ban mbër moo dëkk ah. ma bu ragal. bi de. combat bi ñu ngay waaj baay. billaahi ñu ñaan yàlla may ñu ndam rek. waaw Tapha Mbeur. Tapha Mbeur dañ nga wax ne xorom mooy sabali jën. boo gàmm ngay dawee dina xam ne moom du xorom cin buy baax la rek amul du xobu sedda. gàmm ngay sa xorom la woo. gàmm ngay xorom la cin xanaa doo dégg cin buy baax amul benn ruxu bu sedda tey ku dee yaayam juraat tey yaayam du juraat moom yaayam daa dana pause arrêté na jur tey lay dee tey lay dee maam. dafa mbër tey ma rey la dafa waaw. waaw bay waaw bay waaw. booy gi yéen sax man dafa mbër yéen. dafa mbër du mbër. yalam bi ndeetee. sa pon bu mu yor. waaye kooku du eh. ma soo gis njool mu bon. ma soo gis njool mu bon njool rek doole la. ki bu ko gàmm ngay jàppee waxu ngeen ne ay ñëw rek daan yooyu yooyu dañ yomb dañ koy dóor laa la wax li ngay dégg xam nga yaa ngi doon dégg ku dee sa yaay juraat. yaa ngi ku dee sa yaay juraat kii yaayam daa ménopause kii yaay ji ñàkk na ko tey barka rasulaay kii tey ñu rey ko booy lii wax instant sama yaram a ngi daw. yow sa yaram. parce que dama xam ne dañuy dem jël jël ndam di si ay minutes ñëwaat mais bëggee wu ma ko noonu dama bëgg mu. dafa mbër dama lay yóbbu si moom boo demee nee nga Snap xewi na léegi Kapkid moo xew te wax ju bëri Snap la Kapkid mooy ñaa defaree filimati yooyu noonu moo xew. filimati. filimati. bidon yooyu naan tar tar bii ñëw bi naan taj taj xamay ma laa wax. man man xam laa boo demee nee nga nii laa mel góor du wax njool rek doole la punkal day la waaye xamu ba waxamu bàyyi moo naan punkal day dayla punkal dayla punkal dayla ay punkal dayla ay njool rek doole la ay maalaka kandaw ay doxal bari ndaw ay i sabalay daw sabaray la ay maa la ko duule maa la ko duule dafa mbër boy dafa mbër dafa wàcc ma wasaare dafa daanu ma wasaare TV wasaare TV wasaare TV wasaare TV ay wasaare TV wasaare TV ay wasaare TV wasaare TV ay ziyaare naa leen ziyaare ay wasaare TV wasaare TV ay maa la ko duul ndaw maa la ko duul ndaw ay ngir ran dan ay ngir yàlla doom leen ñi lay neexee eh booy. théâtre kan. waaw buñ ko jàppee dañ koy dóor ba dama naa ko. waaw waaw waaw dara jàpp théâtre. waaw waaw waaw théâtre dañ koy dóor ba bàyyi théâtre. sëñ Ba ñu ngi leen di. waaw ñu ngi lay fay. waaye ak si jàmm. sant bu baax a baax tënkee moo ngi nekk. waaw tënkee gis ngeen ambiance bi ni mu mel. xam nga dinaa bañ sant yàlla julli Seydina Muhammad xam nga ñaanal sunu waajur xam nga yàlla xaaral aajara di ñaanal suñu rakk Gamou Gueye yàlla may ko lu sedd guy si Tafa Gueye Tafa mbër su fekkee ay coono mooy tax nit am nam Gamou tey dina ko am li mu daj si coono si combat bi ñun xam nañ ko moom xam nañ ko li des nag sunu borom la ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax yàlla may ko ndam ndax ndam li tëngee da ko soxla xale yi dañ ko soxla incha allahu rabi. lan nga koy conseillé. non Gamou moom li ngay conseillé moom kenn ko conseillé ndax fi mu yegg si si làmb moo fa yóbbu boppam dañ koy fàttali rek dañ koy fàttali mu tee rek. te loolu rek lañ koy ñaan mu téye rek su téye mën na dóor Tapha Mbeur ba delloo ko parcelle ga mu jóge ndax moo ko daa ko bëre moo ko ëpp doole moo ko ëpp condition physique mais na téye rek loolu rek lañ koy conseillé dañ koy fàttali sax du conseillé quoi dañ koy fàttali mu téye waaw. si xeex li mujjee wala si bëre. non ñun moom préparé nañ lépp préparé nañ xeex préparé nañ bëre préparé nañ lépp waaw ñun préparé nañ lépp préparé nañ xeex bu baax a baax mais nag li ñu pare si bëre bi moo mais ça dépend si moom adversaire bi si moom parce que ki muy bëreel du naataangoom quoi contexte làmb moo leen boole mais lu mu andi rek dina fekk lu fi gën a tàng jër te incha allah rabi di ne Youssou Ndour waxoon na la. ok léegi est booy neen nee na combat yi dañ bëgg mu gaaw boo jëlee saa bi booy nee na ñoom booy yi nee na gaaw est ce bi jàpp ngeen dina. waaw ñoom waxu supporter wax mais ça dépend si adversaire bi déggoo li mu la wax bi su bëggee combat bi gaaw moom dina gaaw l'essentiel Gamou Gueye li mu entraîné dina ko andi. moom bu bëggee mu gaaw dina gaaw parce que ñun préparé nañ lépp jàng nañ suñu xool nañ ni muy bëree xam nga léegi nag bu ñu demee suñu làmb dafa am boo xam ne nii dañ fa jóge def erreur kon combat bi bu ñu ñëwee dañuy xool li ñuy def quoi mais lépp rek si calcul lay doon waaw mais nag làmb ju neex la ndax Gamou Gueye moom ku ko xam xam ne mbër mu agressif la te mbër mu offensif la ça dépend si tafa mbër bu taxawee moom làmb ji bu dëgalee boppam làmb ji du yàgg jërëjëf. eh dafa am bu ñu ko jàppee na xam ne barke Rasulullah ki ko mën ak ki koy jéem du benn ñun beneen nañ yàgg dafa am ba doo dara yow. doo ko defati doo doy yow tey dañ lay roore ba nga xaw ala dee ah dafa am ba. Eh, yow ci comédien nga yow damay comédie yow gën a théâtre nga yow xam nga doo mbër. eh, eh dafa am ba du dara. ate jàmbaar ñu lay waa bu baax. la nekk sant yàlla bu baax. ay si jàmm ay ah, la neexee kay. waaw. lébu moo mel nii. waaw lébu yi moom noonu lay mel moom. seen dëkk daa neex trop moom. nañ ah, moom ni ñu ko war na doole liggéey na ñu daal li si des mooy ñu ñaanal ko yàlla quoi mais amuñu luñ koy que moom xam na li ko war parce que moom moo indi boppam fii fu mu moom moo indi boppam daal. combat bi luy ne day xeex wala ah, mu si doon rek Gamou Gueye moo si ëpp chance bu xeexee bu bëree yëpp moo ëpp chance parce que man bëri naa ah, damay contact ak moom fii nii xam naa Gamou quoi moo fi indi nag dama koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may ndam lu set wi ci kaw Tapha Mbeur daal. yéen day mel du question de xeeb sax du xeeb dañoo xam ku ñu àndal mooy Gamou quoi Gamou Gueye xam nga mooy loolu. ay poulain yu Gamou Gueye sax ñoo mën Tapha Mbeur mais du question de xeeb tere ñuy xeeb doomu aadama lamba waxul dëgg rek ah Tapha maa ko man midi midi midi buñ ko bëree woon daan midi. Tapha Mbeur naka tëggu tama ànd laa waxtaan. moom wax waxkat la ko waa wax moo moo lan koy bàyyil bu duggee si si géem si géem bi moom wax moom wax moom wax laa dina dëng dëng. waaye mbër la de. mbër fan kooku du mbër comédien la kooku du mbër comédien la xel muy teey. tamam daa bëri doo ko wax. góor wax day jóg. ah. billaahi ragal. amul lu ñuy ragal. maaleykum salaam. jàmm. maa ngi si jàmm bu baax. dëkk bi neex na de. waaw gis nga Gamou xew xewle moo tax Gamou Gueye bu xewlee dëkk bi day yëngu mooy suñu champion. xamee kenn du bëre ndaanaan la de. ah ñun tamit ay naanaan lañ buñ ko jàppee moom dañ koy door rek mu daanu làmb jigéen. waaw soo bëree doomu la. doomu daanu laa wax kañ bëri daa yàgg duñ ko may fu mu taxawee. gis nga Tapha Mbeur. gis naa Tapha Mbeur kay waaye ñun mbër lañ yor ñun champion lañ yor ragaluñu si de ragaluñu lu ñuy def def champion lañ yor. Ah, maaleykum salaam. man maay fekk Mbengue. yaay gàmmu gay waaw maa ngi nii waaw. ah combat bi dem rek du du ma ñëw rek. man sama mbër wóolu naa ko. dama ko wóolu sama mbër. mbër sama mbër wóolu naa ko ñi ñoo ko entraîné ñu ngi ay bàyyi ndéem ñu ngi nii dama wóolu sama mbër am na yar am na teggin. te dal na xam na la muy def. dem rek daan ñëw ñu bisa ànd ak discipline dem ñëw. te yaa ngi ne yàlla may ndam. Tapha Mbeur. Tapha Mbeur ah mu xam ne kii dafa entraîné liggéey na de. ah nun liggéey nañ de dañ entraîné liggéey bu si suñu woon na yàlla may ndam. bëggee mbër. waa ji ñu ngi siyaar de naas waaye sant nañu rek waa nii wàccaay rek yaa ma gën a xam waajal gool bu baax ñu pare dafa ëpp Tapha Mbeur maa Tapha Mbeur kan moo ëpp ah maa ko man Gamou Gueye bu ma dabee damay waaye di fépp. kenn ko gis de. xanaa déggoo ma la wax kii am doole mën a bëre pare si lépp kon yaakaar naa ne benn waxkat du la sonal quoi dafa am bëri àddina ñëpp ku dañ ne Gamou Gueye kan ngay bëree ñu la booy bu bari wax bi booy bu bari wax bi tey dinañ ko noppaloo waaw ñun jéewu nu théâtre. jéewu ku ko xam ne entraînement ñëw nekk si ay xaram jéem amul leneen ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla na yàlla may ndam si barkeel naa mën na jeexee si lépp nag si kaw moom moom si jëmi boppam bu ñemee ki nga xamante ne nii nangu naa jël avance am mais mbër di nga jël avance am ba pare nga dem ba bés ba yaa ma a xam di wane leneen dafa mbër dafa mbër bu dëggalee boppam tey ji bu dëggalee boppam tey ji ngeen gis lu yéeme tey ji combat bi fan la gaaw mën na gaaw mën na yéex sans débat rek nee naa la ka moom ka mooy diriger dafa mbër mooy diriger moom moom mooy diriger bu ñemee taxaw bëre si bu ñemee ñëw taxaw bëre si non mu gis lu yéeme ko bu nekkee na si làmba ji di daw nag mooy loolu ah benn ah. parce que si defet ngeen jógee. ah man tey tey jii su ma jógee fii Sóoru Balla Gaye Sóoru Balla Gaye ne damay bëree moom bu làmba ji jotee man maa ngi ñëw fekk ji Balla Gaye attaqué ko dafa am Gambu Gueye kon Balla Gaye rax kii rek waaw loolu la de. léegi léegi. waaw incha allah avance jagataay. yéen waa jag yéen ñëwee stade waaw ñu la waram jagataay tey moom bu naree yomb moom xool dañ koy alina billaahi te bandi moom du liggéey ak policier koo moom ah ñun bandi yi bandi du liggéey ak policier ak ci Serigne Touba ah Tafa mooy policier ñun ñooy bandi bandi. bandi bandi fu mu gisee policier day daw day daw xeet kañ. daw tey tey ñun daw. tey tey duñ reculer duñ reculer benn yoon dañuy taxaw dëgër bilaa yëngalal ko waaw ba mu xam ne lépp dëgg la barke Serigne Touba day xaar lu bëri Tapha Mbeur day xaar lu bëri ñu la booy tëngee ji réel góor yi amul ragal barke Serigne Touba gaamu nag nag bu mag la billaahi te du bëree nag bu ndaw billaahi tey moom bu naree yomb xoolal dañ koy alina ba beneen yoon quoi tey moom lu mu bëgg rek ñu dem si barke Serigne Touba. waaw loolu sëñ bi. sot kanam nga xam ne kanam kàcce da ngay dañuy dem waaw. dañuy dem kay. dafa nar a gaaw dafa nar a yéex. dafa nar a gaaw dafa nar a yéex. non day gaaw waaw. waaw na. ah Tapha Mbeur la bu amee moom deux secondes si la yem déggoo ko de bandi du liggéey ak boo demee nga leeral ko loolu waaw noonu la demee nag. waaye léegi doo waxee. man ndam rek. rek ana booy bis di anniversaire. taxawalee bu fekkee ñaari jël nga ngox kaay fi taxaw. booy yaay tapet yow man fay sa gëm bi awoon kii moo tax. waaw bàyyi mu dem waaw bàyyi bàyyi bàyyi ko mu eh rasul kaay. waaw kaay rek tey dafa am mbër dañ koy wan ne am na problème parce que sunu mbër du ab ragal. booy tëngeej leen booy Rio. waaw mooy booy paase la booy paase la loolu ñoom la concerné mais ñun ay booy tëngeej leen booy Rio der bu ñuul moo dox si ñun. ñun tamit ñoo ko gën nekk der bu ñuul si wetu géej gi leen dëkk. dëkk si géej moom tamit. mais loolu problème la mais ñu ñoo ko gën a jege géej gi ñu si mbeex mi la ñuy nooyee yow fi nga taxaw nii yow instant yii biir géej gi lay dal waaw instant yii dañ yaa gis loolu. dër bu ñuul bi dafa am mbër nekk am na problème. yéen ay France. ñun déedéet dër bu ñuul. du ñu ay français français colonisé fi jokkul la. yow nga continué. xale jël naa waaye li ma jël laa wax waa lay daw caméra lay daw caméra booy ñaata may jox ah booy li bëri gule loo jël baax na xale la pour ñu naan ndox waaw pour ñu naan ndox pour sooy la Gamou Gueye ga Gamou Gueye am mbër moom xam na ne Gamou Gueye bu ko dabee moom du doy bu mu arrière nee daa tëccin daa yàkkamte moom suñu gaal topp la mu toppa suñu ginnaaw ba pare mën a xam nekka mu réglé def nanka na xaar def nanka moom Gamou Gueye du moroomam ni mu demee la rek Gamou Gueye ay saaku daan la di saaku daan bu moo du moroomam sax waa Parcelles la ñu dugg Parcelles la fa day ñoom ñëpp ñoo la gën a pare non non yi ne yàlla ci yaa yaa ñu fekk nga ñu fekk moom boo ko moom jaw ngay sax waaw mais waa Parcelles maa leen wax ñu préparé quoi teel a tey tey jii dinañ gis lu géeme booy tënkee na mu waa mbër mbër la de waa mbër fa

kaaw la bëgg a dem moom. ci victoire la jógee yéen defet ngeen jógee. ñun ci moom ci victoire la jógee ñun ci defar loolu garaawul mais moom mais moom tay si defet lay jógee tay jii. ma ne farkatu meer duñ daan. farkatu meer ma ñëw. jaata moom daal ah, moom daal topp la. ba ceene di wër meer yi. entraîné ba ceene di wër la. katala day la Dubaay la am katala day la Dubaay la am. waaw wasaare la moo yëngal gësam. ma leen ma loolu waaw ma leen ma loolu damay laaxatu. Zambala dañ laaxatu li mu def yëpp bu doon ko laaxat Zambala. oui merci Zambala munoo def lu nga def ba pare di laaxat. Zambala li nga def ba pare munoo moo def lu nga def ba pare di laaxat.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 dañ koy dundee comme ni ñu ko daan dundee rek. gars yi waxaguñ dara beneen combat. non waxaguñ dara. waxaguñ dara ñoo ngi seet yenn gars yi nag mais tamit mooy loolu. comment ne sa xel fu ah, na may chance ñu bëre wala Anta. Anta bu Thiès. waaw. waaw ah, Modou Anta moom instant yii moom adversaire la wut. waaw amuñu combat Aliou Seye numéro 2 ñu grand ñu ngi koy ñaan nañu may combat nañu nañu may chance ñu bëre. waaye si waat.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 non non amul pression Gamou Gamou boo xoolee boo ko xamee xool adversaire yu bëreel ak ñi mu daan nga xam ne waru mën a am pression si kanam Tapha Mbeur waaw man pression. jàpp nga ah, daal ma nga conseillé sax man damaa sopp quoi parce que suñu grand la suñu jóole comprendre nga bari na loo xam ne muy si ñun moo ko def si ñun quoi waaw. day xeex. waaw ah, mën na am lépp. Gamou Gueye ku am yow xam xam ne day xeex waaw ah. day xeex day bëre. bëre dóor lañu wax waaw. jaajëf Mbër. jaajëf merci beaucoup. jaajëf. Tëngéej fii ataa neex neex neex la def. acca salaamaaleykum. waaye ba am commencé fii doomu ko daay def nii daay takk acca booy wax booy wax na booy njëkk wax salaamaaleykum. salaam. sant bu baax kay. combat. waaw pare nañ fépp. ngeen am de. waaw ñun mbër lañ yor mbër lañ am mbër lañ yor a ah, ñaan yàlla mu defal ñu ndam rek ñu seet a guy ñu feedoo ko ñu waa Tëngéej te maanaam ndam ñu ñoo gën a soxlaa fuuf parce que seen jiwaa dafa mbër nag maanaam ñun moom ay lébu lañ xamuñu wax ju bari sax jëf rek lañ man comme moom nag yor na waaw takkanay rojaam day wax di wax ba doyal na wax ba doyal rek ñun lébu yi ñoo ngi nii toog. wax waa ci làmb la bokk kenn mënu ko bañ mais nañ ko baax wax ji rek ñu jëf ji ndaxte maanaam buñ téyee barrière yi kenn ku nekk di nga xam kii sa baay te Gamou Gueye mii gaan kii maanaam am na ni mu demee la sax moo tax mu jël booy bi mais du sañ tax du bañ xam nu mu ko waxtee sax waaw seen bañ seen waaw kay mais noonu demee mais yàlla na yàlla defal ndam lu sedd rek waaw mbër moom ni ñu koy soññoo maanaam na toog si tànk xam xam li mu bàyyi si ginnaawam kese. di ko ñaanal ndam lu sedd guy mu doon lu ko jik barke seen Touba ñu jégalu bu baax. jaay faa góor taw fee. waaye seen combat tey. voilà baax quoi. di Serigne Touba. pour champion lañ am. champion. Baye Fall bu wër yàlla lañ am. waaw mbër yi day day nu mu demee noonu. non ñun finalement with yaadar ñun daan nañu xel dafa dal bu yàgg xel. waaw loolu yëngaluñu. billaahi dañuy am ndam incha allah bu neexee borom bi. kii Serigne Touba. Jambar. Jambar waaw. sant am na combat. man am naa trois combats. trois victoires. amu ko combat bi. non instant suma combat taxawagul man yaa am suma combat yoo xam ne yéen ñii yéen a ko xaw ma waa wasaare xaw <laughs> wasaare ñooy génnee lépp. ñoo génne waaw man kii laa mujjee daal loolu tuddee sax waaw te mu bëri woon dimanche bi waaw. waaw bu dee duma sama moo war a bëri nag ma di ko ñaanal yàlla may ko ndam quoi incha allah. dafa am li ma koy wax mooy. waaw di ñaan yàlla may ndam rek si kawam. ma nga moom moom amuñu dara luñ ko wax parce que moom yor wax ji dañ ko bàyyi mu wax rek ñun moom dañuy waaw taalal suñu loxo yàlla ko waaw di ko ñaan sutural ñu mel ndam sedd guy incha allah loolu la ñuy ñaan. Ah, pare ñu dañoo pare bu yàgg. Ah, moom la xaar nii. ñëw rek def vip. yaa ngi ko indi nga ñëw def vip amul yàggal amul dara. alwaxa mënuñoo daan si benn côté. kooku alwaxaa la mënuñoo daan. ataay kan la ñuy ataaya bu yàgg dañuy meew daan ñëw meew. éviter boobu si meew. waaye yow ñëwal si rek bàcc amul sax xalaat. d'accord amul problème waay instant bi lépp motees wàcce yi amatul pare moo am pare. waaw instant moom wàcc amatul. pare moo fi am dem jëli moom ñibbise yomb de yomb waaye combat bi moo gën a yomb si combat yi ñaar ñii du ñu ay adversaire de. tax gars yi la. kenn du si xeeb bër. combat nga mais combat ñaari mbër yi làmb boolewu leen. ah. jël ko ko. tëj làmb ñam te dañ koy tëj bu sooba yàlla. Tapha Mbeur moo gën a bëri wax si mbër mais na mais wax si lamb la bokk. moo d' accord mais wax ak jëf. comment nga. jëf si victoire la jógee xam nga boo ne ma day jëf si victoire la jógee taba Mbeur ñii gàmmu ngay bëre bërewulaax ñoom ñi gàmmu ngay daan xalaatu leen a daan comment nga mais problème qui se pose mooy na wax wax wax mais si biir géew ba moo gàmmu ngay rek ñoo fay des de bu at bi siflee ñoom ñaar rek ñoo fay des. te bu arbitre sifflé lépp dina leer ñu ñaan yàlla nag yàlla may ñu ndam lu sedd guy comprendre nga parce que gàmmu moom bu fekkente ne bi nii moom kese la ak mu liggéey ñu yaakaar si loolu moom ndam laa ngi fii ni mel na ñëw na ba pare sax bu buñ demee dina leer te dañ koy duma daan ka léegi ñu dem añi pare na dañuy añ rek takk a jóg yàgg na. sama biyaay bi da ngeen di jaar balaa njëkk yi ko defee. champion champion champion waaye sant sa ñu ngi lay fay jàmbaar waaye ñu ngi nii rek. waaye ñu ngi sant bu baax a baax. ci loo nekk yow yow laa avant may ñëw si. waaw Alizé mu ngi nii rek toog rek gars yi wala jël combat bi di taw rek. waaw vraiment nag sama combat moom ñëpp xam nañ di yomb quoi te dama nam géew fu mu nii billaahi xam nga ne Issa yi ren ñu waroon njëkk am combat si laa bokk parce que xam nga ku jàpp amul frein Pape Sarr bu Pikine daan ka dóor ko dóor yu métti ñu ne déet dafa war a toog di xam di xaar. duur yi moo tax gars yi day daw da ngay wàññi duur yi. non saa yi wàññi naa dóor yi mais nag saa yi dooruma dóoree. dama nii kan man fu mu toll nii Isa yi toll nii Ibo bu Kër Mbaye Fall maanaam combat la Ibo parce que dama daan garaawam parce que amul frein moom si moom lañ ne ah dafa war a ñëw ah, moom laa gën a soxla sax waaw faj nar na ñëw ma defal ko affaire rek parce que daje nañ diine mu ne moom di entraîné. ñu may xool ay bët yu ay bët kii moo daanoon sama waa ji moo tax Issa Tall nii day ñëw at keneen ki laaj bi si numéro 2 moom tamit waaw ah. kay laay si boppam parce que laay daaw bu ma laaj laay ma daanee. waaw ànd rek. bu ma daanee bu ma daanee amul wax ñu ne ko Alizé. am déet ñu koy remontage sa waay naan manager naan non du ñu bëre Alizé ndaanaan la waaye du ñu bëre moom Ronaldinho la ñuy bëre Ronaldinho am na combat am na Boy Dakar moom si victoire la jógee man si victoire laa jógee ñu neexal ka ndax dama jàpp seen grand dóor ko dóor yi métti ah mun naa ne amul fa benn defet mun maa ko jox. bë dootu ko daan de. bëre lépp man damay bëre di dóor. sama combat bu mujj bi xanaa seetaanoo ko ma ne laa suwee numéro 2 combat amul amul amul amul une minute ma def une minute de. da doon daw dóor yi fan ma def ko li gën a yomb rek jàpp ko daan ko. doni laaj. non pare naa pare naa pare naa pour bëre at moom. bilaa wallaahi. waaw wala er 5 R5 R5 menn bu ñëwee waaw ñun ñaar combat la si defal la jógee na ñëw mu su ma may ko mu suqali waa moom la Boy Sine daan fan yii nii muy ñaar moom ay géant lañ comme ñun ñun géant yi dañoo dañoo naqaree wutal combat ñun ñëw ñun neexal ko te géant yi bàyyi mu fi kenn. da ngay waaye seen combat. waaw Israël doole yi sama combat moom ni muy waajee bi combat gàmmu bi ah comme ni ñu ko daan waajee yeneen kombaa yi rek di wax ne gàmmu xam nga daa am suñu jógee di wax nag saa yi tey dañuy dem rek mottali quoi li ñu waroon def yow def nañ ko dafa am mbër moom bu yow bu demee na wax rek na nekk sa làmba ji fecca mu neex yëngal ba mu yëngu waaw bu ñëwee dugg si géew bi ñu laal ko mu tëdd. ngeen xeeb dafa am. non xeebu ñu ko de dafa am mbër champion la champion la mbër kaamil la mais ñun daa am lu ñu làmb yi jaral daa am fu ñu jógee gàmmu heure bi waroon waroon woon bëre dafa am mbër ñi xam làmb xam ne damay wax baax baax baax erreur bi mu def si diggante moo soog moom la bëgg a di fee moo tax mu jël dafa am te laajul dafa am mbër dafa am mbër nga laaj kon li si des ñëpp liggéey nañ liggéey nañ liggéey bu jaar ànd ak suñu grand ay ñoom ama neex ay ñoom Papa Ndiaye Djibi Youssou Ndour ay Ronaldo bi déglu tege Sénégal ñun ñëpp ah ak suñu coach yi Babou Galle Idi performance lay boxeur kon Issa Anthony lépp pare nañ pare nañ ci lépp dañuy ñaan yàlla rek xam nga mu yóbbu ñu si parce ñu si bés bi ay waxtu rek moo ci des waaw te bu digg waxtu moom lu ne xaj na si ñaan yàlla yàlla musal ñu si catar làmmiñ xam nga at musibat balaa yàlla def sàmm bés combat bi parce que combat bi combat bu ñu dee ba si biir géej ba si stade bi dina metti trop mais ñun xam nañ waa parcelle yi mais bu soobee suñu borom dañ gérer lépp di ñaanal sa waa rek xam nga yàlla may ko ndam waaw. jaajëf Sall. dellu si bu baax a baax. jàmm daanaka no mun naa ne noppi nañ sax ndax li ñu waroon def yëpp def nañ ko waaw boo xam ni gàmm xam ni gàmm mooy entraînement mais dañ koy ñaanal suñu borom fekk xolam ndax combat bi daanaka bi mu taxee ba léegi li mu waroon def yëpp def na ko. entraîné na dem na seeti mbokkam dem na seeti dëkkandoom te loolu la muy mbër mbër soo amee entraînement rek da ngay neex a ñaanal te moom kenn koo am ba gàmmu entraîné wala du gàmmu dem entraînement entraînement mooy lépp di ko ñaanal suñu borom suturaal ko may ko ndab lu sedd guy te mu jikko man de moom laa ko ñaanal te moom laa ko yéene yàlla moom xool na dama ko xool xool jikkoom xool melokaanam xool bëgg-bëggam te tëngeej dafa bokk maanaam ñiy téewit te ñun suñ doon suñ suñ sañoon doon une deux trois les années ku nekk am lu nga xam ne suñu borom dafa ko jégle te moom dafa fi mu toll dafa bokk si li téye lamb tëggee kon li ñu koy ñaanale mooy suñu borom suturaal ko dafa ko dem lu seddu gu itamoon ci kër waaw. ku tedd gi rek mooy Sénégal mooy Sénégal am naa six combats cinq victoires benn défaite. instant ñu wax combat mais suñu waxee combat da day yàqul gars yi teel avance mooy loolu mais ñu ngi sant yàlla bu baax daa jotagul mais lu jot yomb waaw ndax ñu ngi suñu entraînement taxaw di xaar di ñaan gars yi ñoo jàppale tënkee ñoo jàppale ñu xam ne ñun ay doomu tënkee ñu a jug parce que ñun drapeau xeexal kon gars ñu génn si jàpp tey ku su mel ni gàmmu ni bi tey tënkee ñëpp si war a jàpp ndax combat capital la tey soo defee parcelle dem géej waaye dem feneen feneen parce que seen te li am foofu yëpp fii la fii la fii la gën a buujoo ñu ñooy làmb te mënoo wax làmb te doo si gis doo si boolewaat Tëngéej kon Tëngéej leneen la manqué muy jàppale kon ni gars yi dañu ñoo doole ñu xam ñu ay doomu Tëngéej di ñaan suñu borom may ñu combat na mais di ñaan tamit suñu benn suñu benn frère suñu benn Siteu dafa am combat le 22 di ko ñaan suñu borom may ko ndam lu sedd guy te mu jëkka ñu siyaar ñëpp jaajëf eh, jàmbaay daloo siyaar jàmm kañ naa Tapha Mbeur si victoire la jógee de. waaw Tapha Mbeur ah garaawul gàmmu ñàkk a pexe mu mu jël ko rek xam nga daal mu ana branche bu toogaatam tamit xam nga gars yi duñ ko jël ndax ay morom ñoo liw ñu liw ñu ko jëluñu ko mu wàcc dem jëli rek Tapha Mbeur bon daan ka ma redonance wu dem dem yoonam. est-ce que loolu du risque si moom. wàcc jël Tapha Mbeur. du dara du dara gàmmu xam na xam na liñ koy ñaan daal mooy xam

way sant yàlla bu baax julli si yonent bi. avant may ñëw si gàmm si yow laa njëkkoon ñëw koy foo toll nii. waaw instant yii naaj instant yii moom bu dee suñu côté moom naaj ñu ngi si entraînement yi ñu ngi si kawam daal di liggéey comme gars yi ni def rek liggéey denc rek waaw. combat. non instant yii amuma combat mais bëri naa juillet bii passé le 23 juillet bii passé si combat Ardo ak kii Saba quoi man ak euh, Boy Ndios man Boy benn bi daan caatu yarax waaw maa ko instant looy xaar. waa instant si mbëri la xaw a rek xam nga mbëri gars yi ñu xool fu nooy quoi te làmb ji amul fu nooy loolu. gars yoon yoon lay wut yoon. waaw gars yi yoon lay wut xam nga fu mu gën a foofu la ñuy foofu la ñuy dugg mais xam na ni booy tàngay nii boo si duggee gars yi fu mu génn si problème lay doon moo tax gars yi dañuy wër wër dañuy wër wër loo rek. ko ko ah ba léegi foo jëm yow. instant yi combat Ardo ak ak ak kii ak Liss Ndiago ko daan bëgg ay Mor Kankang ñoom ñëpp booy ñoom ñaa ndaw booy ñoom ñëpp parce fan foofu laa bokk. la ne. waaw ah. booy ñoom ñaa bu ndaw tout booy yooy yëpp waa pare naa pour bëre ñooñu ñëpp. am na comment. waaw mais suñu avenir u làmb si la bokk moo dañoo bokk foofu quoi incha allah waaw di ko ñaanal jàmm rek moom ñaa bu ndaw parce que suñu mbokku tamit quoi mais tamit làmb boole pare nan de allah waaw mooy loolu. seen combat. waaw gàmmu nag waajal ak moom bu di yegg si di entraîner di dem saal xam nga di bokk ak moom lu ne waaw moom nag combat bi waajal na ko waajal bu baax entraîner si nag bu baax a baax a baax combat bu mu fonk la bu mu respecté waaw te xam na tamit combat bi fan la ko mën a yóbbu quoi. a gaaw wala dafa nar a yéex non moom du gaaw combat dina jël temps tuuti parce que ñaari mbëri faaw ñu xeex doog a bëri. non naa ñun pare nañ fépp pare nañ si Zahir pare nañ si Badine waaw. pay nañ ci baatin loolu daal leen doomu jandeer surtout Abdourahmane Ndiaye falang mu ngay waxal de. xaalis mbër la ngeen waaw yéen ngeen war a déplacé wu ñëw ba jandeer seet suñu ñëw jël ñu en séance d' entraînement tout xool si lu ñu nekk parce noo bokk si làmb noo bokk si làmb si làmb lañ bokk kenn mënu see génn waaw. day xaar si télé di wax wax ju bari. ceeb bu sew bu ceeb bu dijjee bee ko gën ñun ay eh, ñun ragaluñu loolu wóor na sëñ Touba dafa mbër moom day xaar ba buñ duggee stade lay xam ne day xaar. ceeb bu woo laa ceeb bu weex xam ne rek nga xam ne mooy mel. ceeb bu woo laa ceeb bu weex. seen salade eh, la la la lay gën a waaw waaw waaw. naka dafa mbër. waaw waaw. bon appétit. yéex ñàkk la jeexee jeex na. waaw bu ñu koy jàppee dañ koy dank comme ceeb ñun lébu yi xam nga ceeb ñun suñu yëf la ñun lébu yi bu ñu koy jàppee dañ koy dank nii barki Seydina Muhammad dafa ci aadal Gambo Gueye xam nañ ne pare na à 100 pour cent quoi waaw. mais tey mu daja xale boo xam ne Tapha Mbeur yaakaar naa ku ne xam ne Tapha Mbeur dafa nekk fii ba pare jóge ci victoire bu am solo mais nag Gambo Gueye non làmb moo tërali rek mais ku xam Tapha Mbeur xam ne suñuy adversaire la ñun ñii ñun la waroon bëreel. waaw. non war na mën a bëreeg moom parce que làmb moo ni mel léegi quoi mais normalement ñun la waroon avant muy bëreeg gàmm mais comme làmba léegi dafa xaw a xaw a doy waar quoi waaw mais wax dëgg yàlla gàmm gi am nañ si moom yaakaar bu baax a baax ndax jàppante nañu ak moom. mais tey boo doon ak ki nga xamante ne mooy Tapha Mbeur lan nga koy wax moom gàmm gi. non gàmm gi li ma koy wax moom même su ma ko ko sax moom xam na ko parce que am na si lu mu jugee. te lii nii combat bi dafa war a confirmer li ma koy li ma koy conseil mooy mu taxaw ba jàpp doog a def action ndax man leer na ma leer yàlla moom li yàlla maye su ko nanguwul su jàppee Tapha bu du yàgg waaw. wax dëgg yàlla gis naa si forme bi baax na amul poids bu bari doole la gën a liggéey te xam naa ne taxaw na tamit quoi. lépp laa koy digal mu def ak moom ndax bu dee lépp lépp lépp bu ko def moom moo ko man barki Seydina Mohamed bu ci yàlla génnee dama ne la Tapha bu ko gàmbu bu gàmbu gay xeexe moom day ñàkk bu bërëk moom mu ñàkk non sa fa mooy favori dañ koy ñaanal ndam rek waa mais man ñi war a bëreek man ñoo nanguwul bëreek man parce que man mënu ma def 11 combats 10 victoires benn défaite jóge si yankaaw mënu ma am combat bu baax non Kaw Gourdin na ñëw ñu bëre daa daan yankaaw ma daan yankaaw këll gi daan ka ma daan këll gi lan la ma mën a bañ ci làmb ah waaw na ñëw ñu bëre bu dul moom euh, nu mu tuddati sama presque sama potentiel adversaire yëpp dañoo am combat Mor Kànga na ñëw ñu bëre ah? mais dañoo war a ñëw ma noogatu leen barki sëñ Touba ñëw baax na na adversaire yi jaadu rek. si kanam stade incha allah. amuraga jaajëf acca waaw noonu euh, waa Tëngéej ana ñàkk ana xeex ñàkk ana xeex ñàkk ana xeex ñàkk boo koy gëj ci Wassare Lamb ñu ngi woon fii tey si Tëngéej ak Pulpus mooy gis nga ne kii ko affaire gaamu gëy la yow acca boo koy gëj la ñu jox dégg daje léegi léegi si stade xali let's go dinaa di dugg dinaa di